Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal mbir moomu jàngat bi ma ci def moom jàngat bu simple parce que pour man euh, BBC bi nga xam ne moo indi mbir waaye balaa balaa BBC BBC sax di ci wax am na yeneen citoyen sénégalais yu ci wax mais tey tey tey tey yaakaar naa ne problème bi ñu nekk BBC moo koy indi ci reportage bi mu def donc BBC organisation de presse bi nga xam ne la moom wax dëgg yàlla bu ñu respecté waaw bi nga xam ne yàgg na am te ci wàllum presse yaakaar naa ne ci lépp rek ci jëm ni ci BBC seen teew donc BBC bu toogee ba def reportage ba génnee ko wax ci affaire boobu yaakaar naa ne am na ci devoir am lay def parce que presse aussi li njëriñam mooy nga gis nga xam ni ay ay ay ay lëndëm lëndëm ñu ngi ci nga daal ne ah li yoon fii de lëndëm dañ ko leeral waaye léegi nag Aliou Aliou Sall tamit ak gouvernement bi ñoom aussi am nañu droit ak devoir waaw ñëw génnee leeral mbir mi ne déedéet di BBC wax du dëgg wala li BBC wax am na dëgg waaye di yëg lii lay demee donc yaakaar naa ne lépp lii yëpp c'est normal waaw mais li may bëgg wax ci lii yëpp mooy bu fekkee BBC li mu wax bu fekkee loolu dëgg la wax dëgg yàlla am nañu problème bu rëy sama parce que bu fekkee loolu muy ñuy wax noonu allégation yooyu ñuy wax ne noonu la mbir mi demee bu fekkee noonu la tëddee wax dëgg yàlla bon am nañu problème bi nga xam ni classe politique bi waxuma classe politique yëpp waaye Sénégal yi bon ñu doog a xoolaat suñu bopp bu loolu moom dëgg réew waaw waaye li may bëgg wax ci au delà de affaire Petrotim bi rek waaye giseen mbirum affaire wu koom réew mi ci boppam di ci li jëmee ne ci phosphate ak mine de fer bi ak mine ay or bi yëpp yëpp la ñu war a toogaat xool parce que depuis boo xoolee depuis indépendance ba léegi koom-koomu Sénégal ni ñu koy gérer bu bu léegi dafa lënd donc yaakaar naa ne war nañu toogaat xoolaat lool yëpp mu gën leer citoyen waaye bu dul loolu moom mbir nu muy demee nii ah dina xaw a doy waar non mbirum mbirum FBI bi bi demee noonu parce que xam nga euh, américain dañu am ay instrument nga xam ni saa yu amee benn scandale fenn mu xaw a mu xaw a laal euh, intérêt américain wala mu xaw laal système américain ñoom foog ñu enquête ko leeral waaw loolu moo tax moom man wax dëgg yàlla le fait que FBI ñëw fii di interroger nit man kooku jaaxalum waaw tiitalu daal bett ma parce que lu euh, ku xam système américain nga xam ni dañu am ay instrument yi nga xam ni li nga xam ni ci situation yu mel nii ñooñu dañuy activité instrument yooyu pour ñu leeralal donc ñoo xanaa Sénégal fii la mbir yi du leer rek waaye ñoom foofu moom lii mbir yi day leer am na kii tamit anglais yi tamit ñoom it même chose am nañu ay instrument juridique yi nga xam ni pour ay situation yu mel nii la donc loolu bu amee foog ñuy activer instrument yooyu pour situation bi pour ñu mën leeral situation bi léegi mbir bi dina dem ci naa ne li may wax toujours mooy justice Sénégal moo am intérêt leeral mbir parce que bu fekkee dañu ko bàyyi nii di ko di ko di ko di ko tapp lii xew mooy américain wala bi bisan yi ñëw dugal ci seen loxo ñooy ñëw bëgg leeral mbir bi te bu boobaa nag mbir bi mën na yàgg fi nga xam ne ñun ñëpp bëgguñu mu yàgg foofu waa xam xam ko xam nga mbir mi fu mu toll eh, damay bañ a sore ci mbir mi parce que foog ma mànd ci ndaxte nit ki moom eh, eh, doomu aadama raw ci jullit moom da ngay màndu ci ay mbir parce que comme que aw ma ay éléments yëpp yu taxaw waaw mënuma taxaw ne Aliou foofu lay mujjee wala déet man li may wax daal mooy eh, BBC am na droit am na devoir am la mu génnee mbir mi waa Aliou tamit am na droit leeralal mbir mi léegi nag justice bi ñu ci te yaakaar naa ni ak li wax ji yëpp ak ak ji yëpp am fan yi yëpp euh, procureur ak ak justice sénégalais am na ay éléments yi nga xam ne yu doy la pour mën leeralal mbir mi waaw bu boobaa nag moom bu leeree mbir mi bu mbir mi leeree bu boobaa ñun dinañ xam foo fu affaire yi di mujj waaye a nii nii nii mën nga wax ne Aliou Sall foofu la mujj waaye du ko mujj surtout que ni wax dëgg yàlla aw maay élément yi nga xam ne dama permettre may wax ci may may may def conclusion may tiré conclusion boobu separated.